du ngeen jël yeeq fekk ko fa mu toog non franchement bu ngeen amee fulla quoi. Sénégal moom justice bi ak euh, assemblée nationale dañoo dem jébbalu ji ci exécutif bi ñoo yem cër de dañoo wax pouvoir exécutif par euh, législatif judiciaire mais ñaar ñii dañoo bàyyi seen daraja jébbal ko Macky Sall lu ko neex rek ñu topp ko ci la république s'est effondrée il faut que les gens le sachent il plus de république au Sénégal il y a une dictature rampante debout volante et violente de constitution donc voilà ce qu'on a au Sénégal amatul amatul démocratie amatul république léegi nag. may bëgg a wax ndaw ñi ne leen lu ñu mer mer mer bu ñu tojati bu ñu yàq seen yëf lañuy ñuy yàq Macky Sall jarul ngeen di yàq seen réew moom la ñuy fa mu nekk xamal ko ne ko réew mi jóg na pour bu doxalul li ñu bëgg ñu jële ko fii jeex na moom nag lu ne mu ngi koy jéem pour ngoy ci nguur gi wante nguur buy jeex yàlla du ko nang daf koy foqar ci daf koy biif puisque xam na ne am na ñoo xam ni neex na ci ñoom neex ay goo xam ni dañu ciy ngoy rek pour nguuru bëggu koo def dynastie Faysal moom jabar ji sa belle famille ses parents ses amis, etc. Ça, c'est fini. Nous disons donc li ko dese rek mooy jëfandikoo doole justice pour xeex ay adversaires politiques service yi nga xam ni. président de la république moo leen yilif muy agence nationale des statistiques ñoo wax ne taux pauvreté ci Sénégal maanaam ndóol gi cinquante six virgule cinq pour cent la te Ablaye Wade da nga ko bàyyi woon ci quarante et pour cent loolu doy na tegtal ci ne moom échec na ci wàllu dénk bi ñu ko dénk yoru réew mi lenn na ko dese mooy jëfandikoo doole ji pour écarter ay adversaires politiques am loolu la population Sénégal war a xeex pour que président de la République bañ a mën a jëfandikoo doole justice di ko manipuler pour xeex politique bi nga xam ni moom la moom la war a xeex atekat yi am nañu occasion tey pour firndeel ne ñoom bañ nañu loolu bañ nañu ñu leen di noot di leen manipuler pour ay combat politique yoo xam ni du seen combat dishonored.